الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتشكير صباح نولد اليوم ci numéro 400 def naa tey ñu ngi ci 460 Touba wala ñëw ak yéen nag ci li ñu tàmbali woon démb ci <coughs> war a génne ci atum mille quatre cent trente dugg ci mille quatre cent quarante loolu nag boo amee jullit bi war a def xool seetlu lu ba xam ndax moo moom li mu weesu jàng na xam na ne am na lu ci jëgul waaw lam jàpp ni jàng ndax yàlla nangu na ko dara wóoru ko ci at mii mu ndax dana ko fekk dara wóoru ko kon war naa tiit ci boppam jàq ci boppam ndax dañ koy rendre compte bu faatoo dañ koy laaj lépp vérifier ba xam ndax mu nga woon ci la ko suñu borom bindee wala am na lu ci des te ku ne gis ni jikko yi yàqu kenn mënu cee mucc loolu kon war na koo def ak feet guy jàll rekk bu ñëwee waaw mbokk yi démb loo ngi doon wax ci wàllu colonialisme bi nga xam ni forme bi lañuy ñuy waaye nateel ga nga xam ni mu ngi fi nekkoon ñu jël li ñi yóbbu lóbb yóbbu leen di leen jaay yooyu moo amatul ñëw eh, toog ci biir réew mi def nit ñi ay jaam di leen liggéey loolu suñ ñu koo bañ suñu mbaay yi nun ñii buñ lay nettali liñ ci fekk <coughs> baal mi liñ ci fekkee ci liggéey lu gi leen liggéey suñ ñu ko bañ nit waru fas romb benn chef de canton mu woote kii kan la ñu ni mooy doomu diw mu nangu fas wa ñu bay ba mbay mi ñor ñu ñëw jël ko mujj sunu maam yenn yi nga xam ni bu ñu bayee ba góob ba noppi guddi yi dañuy bàyyi ba guddi ñu dem góob ko dem ci faneen foo xam ni bokkul ci biir tool bi gas ba mu xóot ñu suul fa pepp ma taal ay sebbu ca kaw réerante ko ñëwaat ci guddi gi waaye mujj am na ñu xam loolu wut ay xeej ay weñ yu sew yu ñaw fu ñu yaakaar ni fii suul lañ fi dara rek ñu jam fa bu nooyee rek ñu ni gas leen fii léeg-léeg ñu dóor nit ci penc mi ana li nga bay mu ni euh, man awma lii laa am ñu ne ko am bu lopp lii ba ci la jóge faatu yépp tubaab bi moom bi mu ñëwee am na beneen forme bu mu fi bàyyi boo xam ne beneen bu ko gën a pire léegi moo am yëpp nun nuy nelaw rek nuy nelaw rek bu ngi yow mukk ñi xam loolu war koo mën a faj ñoom ñoo ne ci ñi ëpp ñoom ñoo ne ci donkaas yi ñoom ñoom ñooy nguuru ñoom te lañ ne nguur lekk naan la ndax folliku lay bette waaw te yàlla ca waxam ci jàngal nu wax waxal nu démb ni di ngeen topp ñooñu nag ba luñ def ngeen def ko buñ defee yëfu bàyyi ma sax ngeen def ko tey nu àgg ca waaw duñ taxaw seetlu nag dund kaa ngi dem moom xaaru na te nit li muy mujj def ci kaw àdduna moom mooy faatu ku jun dund ku yaa ngi daw jëm foo jëm da ngay faatu ji rek moom am na benn terminus boo xam ni saa yoo boo fa àggee dangay ngay gaaree waaw bis bu la romb rek tata bu la romb rek am na terminus am boo xëy fa la yem waaw bu dem tuur ñooñu rek yabaat ñu ne ñëw nit ñeeg noonu la rek ala koy xale. waaw kon loolu mënoon nag nañ jëkkee ci bu ñuy jàngat suñu diggante ak internet mi nu yor waaw internet mi nu yor eh, nga xam ni bokk na ci li muy jëkk a def ci yow yow jëmm ji yor sa appareil bi ndeysaan mu nekk sa xarit lool moom nga gën a fonk ci biir kër gi ndax bala ngaa tëdd di nga xam fan la appareil bi ne boo yow di nga xool ba xam ndax mi ngi fi ndeysaan booy génn tamit boo mënee ànd ak moom ànd ak moom waaw wut sax ay diglukaay yoo xam ne danga ko ciy dugal muy ay écouteur waaye boo nekk ci nit ñett léegi di nga mën a jokkoog ak ak internet nga xam ne léegi daa bokk ci année quatre-vingt-dix wax naa leen mos naa dégg ci benn journal dama doon ree ndekete loola dëgg la benn famille américain bu doon porte plainte ñi liggéey ordinateur ndax lan ndax dañoo dem ba sigiñ ci wàllu jëfandikoo ordinateur ak ci internet ba famille bi mënatuñ ko bàyyi loola ñu gis ne am na lu leen xañ ñuy dem nag di porte plainte yi ñi leen dugal ci wàll gu mel noonu loola baa ko déggee dama doon ree waaye fi toll nii benn mbokk dafa dugg ci genn kër nee na euh, daal di <coughs> nuyu borom kër gi ñu ko waa yow ana sa xale yi mun ko ah ñëpp a ci saal bi nee na ma dugg saal bi ñëw ni ko fekkee nekku fa nee na fekk naa fa mbooloo mu bari waaye ku ne yaa nga ci sa waaw di wax ak sa bopp rek nga xam ni eh, waa ji nga xam ni moom dafa sant eh, ñan di ab jëlkat dafa programme comme xam na nit ñi léegi day ñëw rek eh, dugg ci kër goo xam ne gis na ni ña ñëpp ñoom ñu ngi connecté wu bi mu ñëwee rek daal ne salaamaaleykum ah waaw junj ko ni ko àggal ci biir ah, mu daa dugg naa ah waaw kon nag ah, xanaa lu mooy kii bi daal di ñëw jël nit ñi ñu ngi koy xool waaye kon yaa ngi connecté wul defe ni kii ni ci biti moo ko ni waaw demal nga jël nangam ba ci saal ba waaw waa na mu ñëw jël loolu ci bi léegi daal di génn romb tamit ni kii woon ci biti waa baax la jox na ma maa ngi ñëwaat maa ngi ñëwaat kër tamit daal di yëngal bopp bi ni ko waaw masalan gars yi bu ñuy connecté wu yow miy wax ak ñoom nii euh, duñ bëgg a wax ak yow te dañuy bëgg a débranché wu libéré la pour nga dem def ay junj yow ba nga dem ndax ka waxal ca internet ba kooko bëgguñu dog wax ji te bëgguñu mu xam ni ñoom ñi wax ak kenn kon nag ah boo fekkee ñuy ñuy ñuy wokaal wala ñuy wuyu téléphone wala ñoom ñuy. téléphone walla ñuy diglu loo xam ni mi ngi ci YouTube bi léegi bëgguñu mu jàll bëgguñu dara raw leen ci ah wala wala ñuy xool loo xam bëgguñoo xool leneen boo ñëwee junj yi ñu lay def rawatina bu ñu la xamul na bu ñu la xamee sax junj la nga toog bu ñu la xamul sax daanaka dañuy daal di débranché wu ci loola nit jaar na ci ki ma ko nekk li nee ba sàcc. ci xam kum xam te lu am solo la sàcc ci kër gi keroog sama benn rakk nee na moom bi mu ko defee ci kër xarit bi ne ko ànd sa xale yi mun ko saal bi bi mu demee ñu mun ko fekkee nekk fa nee na mu ñëw ni ko waaye yow xale yaa ngi nii mun ko voilà gis nga xale yi wal leen ginnaaw moo xarit bi ñu taxaw mun ko soo yi rek wax nga dëgg lii moom dinaa jóg moom timiñ leen wax ba delluwaat ba kaas amul ci kenn koo xam ni daanaka faale na leen Hmm? kon war na noo xool nag nii nu ko joxe paal ndax est-ce que jar na loolu ci ko inconvénient yi mooy euh, salbiyaat yi nga xam ne mu ngi ci internet bi euh, xam nga suñ tubaab dafa wax ni <coughs> jikko yi nga xam ni moom la sëriñ si di defare nit ñi euh, sumtun wa juucun tawilun baadahu zaharun wa uslatun an shuyuxin bil ishaaraati sumtul muy noppi teent bi moo ni man kaana yuminu billahi wa yawmil axir fal yaqul xayran aw liyasmut ki gëm yàlla gëm bis bu mujj bu gëm ni day faatu di ñu laaj ko nay wax lu baax te noppi gis nga ko kon eh, sumtun ah wa tawilun xiif bu yàgg tamit day defar nit waaye xiif boobu léegi <coughs> ngay gis koo xam ni añul te pourtant añ bi bi ñu ko tegee woo nañ ko mu ni suur na booba xiiful ndax lan internet bi ah léegi nag añ nañ ba noppi pare na ca lam doon seetaan léegi ñëw na ni ana añ bi maanaam ni kenn woowu ko ba daa mujjee di di di di xuloo ci lu tax ñu añ bàyyi ko loolu lii am na ci internet waaw ah eh, wasaaratul muy vee bañ a nelaw yooyu yëpp ay jumtuwaay la sufiyank yi defar nit léegi nag internet bi moom it euh, euh, da lay defal yii sum sumtun ak jooxoon jooxoon tawilu nag zaara mooy euh, gis koo xam ni bu la waxee heure bi muy tëdd ndax internet bi da nga naa déedéet waaw waaw moom heure bi muy tëdd ndax internet bi moom heure boobu heure la jaamu suñu borom boo xam ne ci la nitu yàlla yi daa tàggat seen bopp di ci naafi la moom moom ma ngi ci internet bi wa uslatun beru an suyuuxin waaye nag loolu léegi wa uslatun an internet day beru nag ak internet dañ da nga daa beru nag ak sëriñ sa waaw bi isaaraat ci ay tegtal léegi nag internet bi moo lay tegtal léegi nag noo ci gën a mën di euh, euh, bànneexoo ak di ci def ictichaaf di découvrir li nga xam ni moom nga bëgg xam ci internet ci loo xam ne mbokk yi du jeex cee def ndànk mënoo découvrir ba découvrir ci internet bi lépp ay millions yi yoo xam ne ci bis bi xew na yow li nga gis nga defe ni macha allah tey jii ndekete am na yoo xam ne moo gën a pire yow li nga gis ba kontaan yow loolu mënoo cee def ndànk xoola bayit wi ni nu ko changé rek yépp internet da koy def ci nit ki lu ci nekk dañ caa war na doon mbir moo xëy day digg doomu day digg doomu waaye nag gis nga tey dañ cee dugg ak xew na aw xewit la dañ cee dugg ak yombal nañ léegi ba connexion yomb na ñu bari dañ cee dugg ba léegi appareil bi ñu bari ku yorutul appareil boo xam ne fi mu toll nii appareil bi nga doon jël un deux nekk ci ngay bës di woote téléphone yii yooyu moom ku ko yor léegi dañ lay xoolaat dañ lay xoolaat de moom koy lu doon ab kii rek sa baaram ngay tëg rek waaw mi noonu loolu nag kon bu jotee duñ ci yee nag fu euh, njabootu taskiir gii ñoom nga xam ni baatu taskiir mooy rappelé mooy fàttali nit ki mooy kan yaa ngi perte de jumtuwaay la bu ñu mën a nag defaroo mën cee defare nag man cee defar suñu diggante yi ak njàgg ci suñu diine ndax ñu bari ñu ngi ciy réussir ci loolu waaye ñu tuuti ñoo ciy réussir ci loolu ndax benn borom xam-xam nee internet bi am solo gi am solo nga xam ni téeméeri mbir yi nekk yëpp juróom-ñeent nee na yu yu baax la waaye nee na téeméeri nit yi koy seetaan yëpp yëpp juróom-ñeent fukki juróom-ñeent ca benn bu bon ba bàyyi juróom-ñeent fukki juróom-ñeent yu baax la mais dañoo rawees ci mbir yi. bu doon yem ci quatre-vingt-dix-neuf yu baax yi nu gën kon weesu nañ fii ci ay jikko moom rek muy ñëw doon eh, lu ñuy xaw a misaal ci masiwu dajjal muy benn bët bi mu doon moom moom internet waaw moo ne jàkk écran bi rek moom donc eh, nga xam ni dafa gëndale àdduna yépp léegi dañuy jokkoo ci ci benn jotaay xamante ci saasi miinante bëggante wala bañante di jariñante ci saasi léegi ubbil sa compte YouTube vie yi na bari moo xam la nga koy def baax na walla baaxul nga daan am ay dollar aha kon compte yi léegi foog moo bari ñi ko liggéeyeen ngir di ci wut alal ngir di ci xam nit ñi bu baax ñu réussir lañ ci côté boobu dara jiitu ci suivi jullit bi war a bàyyi xel loolu ak temps biñ koy laaj boo liggéey waxtu waxtu jullit ak waxtu tamit defar nañ ci ay waxtaan yu bare bare bare bare waaye dinañ xoolaat daal numéro yi ñu defam te euh, jamono da koy laajaat léeg-léeg ñuy wax ku dem ci biir euh, taskiru saba ci groupe ba boo demee buñ la dugalee ci fañ ko denc di nga am waxtaan yu jëm ci tam sàngam ñu ko defan at sàngam wala nangam yooyu moom dinañ ko mujj vérifié waat suñu bopp di wax numéro yooya euh, ñu di ca delluwaat di ko jël léegi di ko jariñoo waaw li nga waral xool sa bopp waaye yooyu yëpp euh, mbokk yi dañoo bëgg yow nga génn kon ci quatre-vingt-dix-neuf yooyu nga xam ne ñu ngi ci benn bu bon bi rek te yow euh, dem ci quatre-vingt-dix-neuf yu baax yi yow nga yem ca mënoo koo jeexal te gis nga tàmmal sa bopp la li nga tamal sa bopp loola mooy doon sa bëgg-bëgg rek kon mën ngaa tamal sa bopp loo xam ni lii benn am na njariñ ci àdduna am na njariñ alaxira te amul bàkkaar waaye li ëpp ci li ñuy def am na bàkkaar lu tax gaaw yooyu ma la jot a tuddal ci ber gi ñu lay ber ci nit ñi ak euh, ber gi ñu lay ber ci yu bare bare bare bare bari dañuy def ci yow yàkkamti ndax lan waaw bu message ñëwee wala dég-dég nangam xew na gaawal touché Google gaawal touché internet touché WhatsApp ndax lan nga daal di sa kumpa dañ ci lii ñu wax ni moo xam ndax loola lu araama xool la wala lu la amal njëriñ la wala euh, gàcce la ci jullit ñi waaye daal di ko xool yi ña bëgg nag ko xool seen site moom daal tey amee nag ay vues yu baree baree baree baree baree rek ndax booba tàmm nga ko ba fekk amoo bala nga am jàmm daal di nga dugg ci <clears throat> internet bi ba xibaar bi nga dégg moom nga soog nga nga soog am jàmm nga dégg walla nga gis waaw dina la jëwloo aussi dina la ràmbaaj loo message bi ku ko jàllale nangam ma ki nangam te jàllale ga léeg-léeg xeetu rambaaj lay doon yow yow mi ko tasaare gis nga ko yépp rambaaj al xiiba dafa dafa xaraam namima dafa xaraam suma mooy ndégtal yépp internet da koy def loo nit ñi mbokk yi ci yàlla kon lu yem fi bu subaak jàmm dinañ wéyal lii incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.